mu ngi leen di gërëm di leen sant ci terte bu exceptionnel bi damay doore sama kàddu ci nuyu kilifa diine yi ci fekk yu tedd yi jiital ci sama sëriñ sama baay sama xarit di sëñ Cheikh Mahi di ko gërëm ci dalal gim ñu dalal waaye di waxit ni diggante baay ak doom ku ci bëgg a dugg yaa ci des di nuyu suñu xalif suñu papa bu Léona Niassène di Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass di ko siyaare bu baax di ko sant surtout ndax xool naa xat-xat bi nga xam ne moo dëppoo campagne bi mu jàdd bi ñu fa jàdd ñu koy gërëm di ko siyaar ñoom ñaar ñëpp nag ñuy ñaan yàlla yokk leen wér gu yaram bàyyi leen fi lu yàgg yàgg yàgg waaye may leen ñu doon ñuy rawatina nag ñu ñaanal jàmm ndax ñun moom la ñu dox di nuyu ki kilifa dëkk bi ci wàllu administration wala àdduna muy xarit sama frère Serigne Mboup di sama xarit boo xam ne politique boolewuñu alal boolewuñu waaye xaritoo bu dëggu la ñu xaritoo artigal boobu xalaatuñu woon ni moo dox ba nekk meeru Kaolack man ma dox ba nekk meeru tey jii ziare ji ko chambre de commerce ba démb ci guddi ñoo ci doon waxtaan far bu ko yóbbu Ndakaaru moo tax tey état di nuyu xarit suñu bàyyi suñu imaam muy imaam Alioune Badara Ndaw dama bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak man waxandoo imaam Alioune Badara Ndaw n'est pas un terroriste imaam Alioune Badara Ndaw n'est pas imaam Alioune Badara Ndaw n'est pas un ci dëkk bi mooy ñoom dañuy dem lëkkaloo tubaab tubaab amee ne leen il faut ngeen créer ay terroristes rek pour ñu mën a ne Sénégal li xew feneen ak feneen moo fa xew bu ko defee yow nga am sañ-sañu nag mën a voté loi yoo xam ne. kii que ce terroriste il s'appelle Macky Sall. tamit li ma leen ma bëgg a ak yéen mooy Sénégal dafa am lu doy waar lu xew mooy dafa teg système boobu xam ngeen lan mooy objectif bi mooy fexe ba noot Sénégalais yi ba kenn dootul ñeme wax Macky am ñu ko dëggal loolu nag tubaab yi bokk ci ay xalaatam katam bokk ci mu jënd une partie de la presse nag yéen a ngi fàttali ko affaire Aliou Badara Ndaw l'observateur lu bindoon Alioune Badara Ndao un dangereux terroriste xam ngeen lan ci jublu mooy dem ba kenn dootul sañ wax Sénégal man ànduma ak ku ko wax ñu ne la terroriste bu leen nangu ñu noppeen assumé ñaar ñu jël nag beneen bi mooy rebelle mbokki Kaolack le grand rebelle Ousmane Sonko bu sali su su dee rebelle su dee rebelle mooy jàkkaarloog Macky Sall man maay le premier rebelle du Sénégal waaye dama bëgg yéen waa Kaolack yéen waa Kaolack yéen ñi ngeen xam ne pare ngeen pour jàmmaarloog Macky Sall dama bëgg ngeen ànd ak man wax bi ñun ñëpp nous sommes ñun ñëpp nous sommes des ñun ñëpp nous sommes ñun ñëpp nous sommes kon Kaolack est rebelle à Macky Sall ma ne dama ne xam ngeen Macky Sall day fooy xelam dafa foog ni moo gën a muus Sénégalais waaye li xale yi naan saana saana passera pas du noonu naka la <laughs> ah dafa foog ni moo gën a muus nit jënd une partie de la presse bis mu ne ñu bindal ko ay titre rëy ñu foog ni loolu mun na terroriser Sénégalais le réveil sera brutal le réveil de Macky et de sa presse corrompue sera dubitable bu loolu weesoo nag may wax mbokki Kaolack di ko wax mbokki militants yi ñu dajeel yépp liñ leen di ñaan mooy un peu de tolérance vis-à-vis de vos leaders ñu sañoon ñun tey Kaolack la fanaan suba ñu yendu gannaaw suba ñu yendu parce que Kaolack ñun ñoo ko bëggal suñu bopp waaye xam ngeen campagne bi lu muy demee fenn fu ne dañ koy mosal tuuti ndax ku war a def 46 département ci 14 jours boo doon def ñetti département par jour du tax nga pare fi mu ne nii waa Kaffrine ñu ñuy xaar depuis 16 heures 17 heures passé na ñu ngi fii war a teer ji Tambacounda continuer Bakel continuer Matam dellu si Linguère def Mbacké daal di continuer Bambey war a continuer waat dem. Louga Saint-Louis dem wax naa Matam mooy Fouta duggee foofu ñëwaat def Dakar doog a def nag Casamance xam ngeen loolu ñu war koo def ci 12 jours ama 13 jours kon na ngeen nangul ni suñu defee lii su ma sañoon dañuy dugg ci marché bi ndax ñetti yoon yi ma fi mu sañoon campagne dugg naa ci marché waa waaye li duuf ci nag bi lépp xajul ci cin gi kon waa marché ba ñu ngi leen di waa Touba Ndorong ñu leen waa feneen ak feneen waaye na ngeen ñu dox comprendre tuuti yéen tam xam ni mbir mi yombul ci ñun nañ ngeen ñu loolu jërëjëf di ma wax tamit bi leen di ma wax tamit mooy mbirum RTS dama doon dootuma ci wax waaye naa ci wax lu tuuti xam ngeen ndax ma ciy wax lu tuuti dama bëgg yéen ñii ak feneen fu ñu def ngeen ban jaawat le ñaar agent yi ñëw di liggéey ay ndaw rek lañ dañ leen yónni ñu def seen liggéey du ñoom ñooy responsable li am bu leen kenn bundaxal tal bu leen kenn wax kàddu ku ñagas bu leen kenn def loo leen warul def ni ci ëpp ci ñoom ñun lañu àndal ngeen am ko dafa mel ni policier bi ñuy yónni pour mu sànni leen gaz lacrymogène yàlla xam na ni ñu ci ëpp ci ñun ci ñoom ñun la ñu àndal waaye dañu war a def seen liggéey loolu moo leen fi bàyyi kon man li ma wax politique bu RTS la politique RTS Macky Sall ak directeur général RTS ñoo ko ñoo ñu laa waxal waxuma ak agent yi bu leen kenn tuddati bu leen kenn waxati lu ñagas bàyyi leen leen ñu def seen liggéey waaye li ma wax ci RTS changé wu ma ci lu toll ni tarfata ay parce que nag ñun gannaaw yàlla ragaluñu dara de Sénégal ngeen jéggal ma ci wax ji Sénégal xam nga lu ñu bëgg ci euh, leader politique mooy nga doon ab naafeq gis dëgg bu wér kéem nga ne ko laal parce que il faut ñu rafetal affaire bi il faut ñu maslaha il faut il faut dama ne RTS est une chaîne hors la loi parce moo ne ñun ñoo koy jox suñu impôt moom rek yeneen chaîne yëpp subvention bu ndaw la ñuy jox ci suñu impôt waaye RTS 100 pour cent budget ñun ñoo ko koy jox fi mu ne nii Macky Sall ko bëgg a tabaxal budget boo xam ne ëpp na 10 milliards xaw ma ñu ngi ko bëgg a tabaxal ab building suñu impôt moo koy tabax lan mooy nag lan moo mën a justifier RTS ne man Ousmane Sonko moom Déthié Fall moom maam maam Diarra Bousso moom Cheikh Tidiane yu moom Khalifa Sall lu dul élection du ñu am cinq minutes de temps d'antenne dugg RTS chaque jour nag mu jël Macky Sall di ko peinture suba ba ngoon jot Macky dàq ci Sénégal Macky gën a baax Macky dama ne loolu dañ koy dénoncer ku mu neex dinañ ko dénoncer ku nañ ko dénoncer ku mu naqari nag dëgg dëgg dëgg ku mu naqari naan géej gi waaye dinañ ko dénoncé ne kenn mënu ci dara gis nga Sénégal débat yi fi war a am dina fi am parce que dafa am benn système bu ñu teg li ma leen wax léegi am ay nit yu ko ŋànk daal di teg seen i sens interdit nag li leen arrangé rek dañu wax ci réew mi li leen arrangé wu kenn ko tudd ñu nekk ci sa sàcc xaalisu réew mi suba ngoon di ko séddoo loolu dina fi jeex. les les organes de presse daf ci am ñoo xam ne dañoo jël seen choix ne ñoom dañuy ànd ak Macky Sall pour xeex ñu ñun bis bu ne ñu bind loo xam ne ay fen yi neen teg ko suñu bopp ñooñu ils ont ci fan yi di ñëw def leen ma bu baax ci fan yi di ñëw dinañ publier la liste rouge des organes de presse corrompus par Macky Sall des organes de presse de l'affaire gis nga xeex dafay saf man ku ma xeex ma xeex waaye ñu di dàq loolu doo ci ku yaakaar ni yor nga sa organe de presse yor nga pouvoir boo xam ne mun nga yor mun nga rey nit mun nga suul nit man mii di wax ak bu doon presse rek bu doon yenn organe de presse yi rek te nee nañ ñoom ñoo ëpp doole Sénégal kon Ousmane Sonko dee na ci politique bu yàgg. dañ maa fenala fenala fenala fenala ba jëm xam nu mu dem waaye gis nga yàlla ak bi mu andee réseaux sociaux ba pare jox ñu ndaw ñu mel ni yéen la tool presse jeex boobu la tool presse jeex ñun duñu porter plainte duñu dem tribunal dañ leen di duma bëccëg mbir kan bis bu ne seen xol yi dagg ñuy wër di fen suñu tur di gën a jëm kanam leneen li ma bëgg a wax nag lii mooy waxu politique bi léegi nag ma wax ci programme bi parce que élection lañ jëm te ñu ñu leen jàngal ci politique mooy politique xam-xam la politique du xuloo du saaga du xaste suñu gars yi seen jàng dafa màccul moo tax ñu wër ci tere di saaga politique xam-xam la programme bi ñu leen wax ci assemblée nationale lan moo war a tax ngeen voteel ñu ak lan moo war a tax ngeen bañ a voteel Benno Bokk Yaakaar xam ngeen tax waru leen voteel voteel Benno Bokk Yaakaar mooy lan mooy seen bilan ci cinq ans yi ngeen xam ne da ngeen leen joxoon majorité écrasante à l'Assemblée ba ñuy dugg Assemblée nationale ñoom 127 députés la ñu amoon sur 165 ñu dem jëndi ay député ñoo xam ne dañoo xol woon ci opposition ñooñu dem fekk leen mujj gi ñu am cent quarante sur cent soixante cinq députés lan la ñu def ci cent quarante députés yooyu saaga xeex dóore fen ak bañ a woteel waa góor jigéen loolu mooy assemblée nationale kon kooku est-ce que war ngeen koo joxaat majorité ñaari bi war a tax war leen jox majorité Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar mooy Macky Sall le 24 février 2023 à 18h30 day takk bagaasam jóge palais de la République loolu gannaaw yàlla kenn mënu ci dara léegi nag yéen ñëpp xam ngeen ni dafa bëgg déposer troisième candidature pour ñu jeex réew. ku ñu jox réew 12 ans nga tële xale yi fi nekk nii ab bar Jakarta ku fi am liggéey nekkati loxoom ku fi amul liggéey nekkati loxoom lii mooy bilan Macky Sall est-ce war nañ koo bay mu am mu déposer sax troisième candidature Macky Sall warul def une minute de plus li ñu waroon wax kay mooy est war na yeggali mandat bi sax waaye naan day def troisième mandat loolu xalaatuñu ko Sénégal waaye nag waaye nag pour ñu éviter mu am fi troisième parce que jaral na ko lu ne ah xam ngeen lu tax gaz bi mu jaay ak rakam pétrole bi mu jaay ak rakam xaalis réew mi ñu sàcc zircon bi pétrole day geneen ak geneen xam na moo leen ko gën a xam. xam na ni bu ñàkkee pouvoir bi dina métti ci moom de ah xanaa xanaa xanaa xanaa nit ñu baax ñi nit ñu yéwé borom xol yu baax yi ku mel ni Khalifa Sall peut-être bu baal ko waaye man de su dee maa ñëw ñafal ñafal ba mu sax loolu moo tax mu ragal loolu moo tax mu ragal waaye nag dama ne xam ngeen mbir mu du soxor de waaye Sénégal dañu war a gëm dara ku ñu dénk li ñu dénk moom ko yor ko ci yorin bu rafet jëlal sa njaboot teg fële dërëmu askan bi delloo ko askan wi man de liggéey naa impôt domaine 15 ans wallaahi musuma jël dërëm bu mu musuñu maa ger musuñu maa ger musuma laaj xaalisu jàmbur parce que alalu mbooloo la alalu mbooloo ba ko fa loolu la waaye ñu jox la nga jël yow sa famille ak say militants ngeen seddoo ay milliards milliards ba pare jàpp ni war ngeen mën a pare dem toog fële di seeti seeni xaalis peuple bi continué di trinqué loolu dina fi jeex révision de compte loolu ci suñu constitution lañ ko bind ma li war a tax ñu bañ koo jox majorité assemblée nationale mooy stabilité réew mi Sénégal dañu soxla stabilité ku bëgg a jàmm ci réew na wax Macky Sall moom moo ne woon Ablaye Wade julli timis wala julli fajar ñaari rakk la julli it la wax ñaari rakk la boo buggee taxawal ñetteel ñu sàbbal la moo ko wax de tey nee na moom moom xam nga xutbu la moom xutbu la day fatwa day day day def ay ana ustaas kii nu ñu koy waxee sax day def ay istihaad istihaad laa wax istihaad mooy interpréter alquran ak sunna pour génne yeneen règle nee day def ay istihaad ay qiyaas ba léegi li ko xam-xamam may mooy léegi julli it moom Serigne Macky Sall julli it léegi ñetti rakka la te moom moo ne woon julli it ñaari rakka la léegi nag dinañ ko sabbal ba mu xam ni mën ngeen sabbal du mën ngeen sabbal ba ñu egg ci loolu moo tax ma ne loolu moo tax waruñoo voteel Macky Sall lan moo tax ñu war ñoo voteel nag dinaa ci jukki benn poñ ni ma jukkee démb mbuur benn poñ daal di jukki feneen benn poñ parce que dafa am solo ñu wax sénégalais lan mooy suñu programme fii nag dañoo nekk ci Saalum Saalum nag ko wax mbay nga wax wax nga gerte wax nga dugub wax nga mboq wax nga yeneen ak yeneen fi ñu toll nii di wax ak yéen fi ñu toll nii di wax ak yéen nawet bi commencé na est am ngeen engrais engrais amu fi am ngeen jiw bu mat su jiw amee est-ce que ay semence certifiée la na ñu toll ci jamono joo xam ne. non seulement semence certifiée amatul dañuy sol ci ay xott naan semence certifiée la ñoom xam nañu du certifiée mais li gën a garaaw mooy noo mu nee jël ne famille bu nekk 7 kilogrammes par tête nga leen di jox kilo kilogrammes ci gerte lan la ci nit di def loolu mooy problème bi tey jii ñuy wax fii ci Saloum nawet bi c'est mal parti nit ñi jaaxle nañu béykat yi jaaxle nañu. mboq bi jafe na dugub bi jafe na kilo bu kilo dugub 400 francs fii ci Sénégal kilo dugub ah yéeg nga 500. déet matul 1500 déedéet gerte 1500 kilo gerte 1500 waaye man dama ne kilo dugub bi xam moo tax. dégg naa moo tax moo tax sama jaamu séeréer yaa ngi jooy de sama jaamu séeréer yi nekkatuñu cere ñoom ñëpp léegi ñu ngi may laaj ñàkk temps 400 francs kilo dugub loolu mooy problème mu Sénégal moo tax ñu ne leen bu ngeen ñu joxee majorité à l'Assemblée nationale déglu leen ma bu baax ñun ñu ngi lay gouverner mais dañoo am sañ-sañ. mooy xam nga li ñuy wax budget daan ngeen ma gis assemblée nationale suñu andee budget bi ñu duma leen duma yu métti maag ñoom Déthié Fall ak ñoom ay Mbodj normalement budget bu ñëwee assemblée nationale dama bëgg yéen ndaw ñi ngeen xam ni amul cër bu gën a am solo assemblée nationale pour ñu équilibrer les pouvoirs au Sénégal mais boobu day fekk nga am député bu mat député ba pare jox ko majorité buñ ñu andilee budget bi ñun bu budget bi ñëwee ñu xool ko gis ni budget bi jëlul en compte li nga xam ne moo yitte Sénégal yi su dee ñoo yor majorité dañ koy delloo Macky Sall ni ko xoolaatal budget bi la nga def ci mbay mi doyul xam ngeen dafa am lu ñuy wax le protocole de Maputo ñu signé ko en 2013 Union africaine moo ko signé loolu dafa ne réew bu nekk dafa war a consacrer 10 pour cent de son budget à l' agriculture minimum 10 pour cent Sénégal musu koo respecté 10 pour cent de ton budget da nga ko war a jagleel mbay mi buñ ko defoon léegi baykat si seen problème jeex waaye li ñuy def ci agriculture matul sax 5 pour cent jamono jooju nga jël alalu réew mi di ko pasar pasare jox ñu dem seen yoon jaay suñu pétrole jaay suñu gaz la ca des nga jël tubaab bi naan la tabaxal stade nga dem tabax stade tabaxal autorail nga tabax autorail jamono jooju waa àll baa ngi bëgg a dee. waaye Sénégal yemul Ndakaaru Kaolack ci Sénégal la bokk Fatick ci kaw Sénégal la bokk Ziguinchor ci Sénégal la bokk Matam ci Sénégal la bokk Diourbel ci Sénégal la bokk Kédougou ci Sénégal la bokk ak feneen ak feneen kon beneen bi nga xam ne bëgg nañ ko def te Moussa dugal ko ci programme mooy la territorialisation des politiques publiques mooy région bu nekk su ñu nee budget bi 5000 milliards. nañ ne région bu de war nañ koo jox au moins au moins au moins deux cent cinquante wala trois cent milliards sur les quatorze régions la ca des nag état central bi mun na ko jël pour les grands projets yi nga xam ne ñëpp moom la ñu bokk nii la ñuy defaree réew réew doo tabaxee ci kaw ci suuf nga koy tabaxee mu yéeg loolu moom manqué ci Sénégal kon bëgguñoo guddal parce que mun nañu toog fii di wax ba fajar te ñu ngi xaar feneen waaye li ma leen bëgg a wax dem leen jëli biir carte eh, dem leen jël carte de vote est-ce que am na ñu fi jëlagul seen carte de vote ce que am na ñu ko jëlagul dem leen jëli ko bu ngeen ko jëlee ba pare xam nga mu nga noonu dañoo far waaye nag dee ko bàyyi kër ga damay bañ mu réer bu réeree baax léegi bu ngeen ko jëlee ba noppi mbokk yi déglu leen ma. dañoo faral di wax ni ndaw ñi am nañu engagement trop ci ñun waaye ñu bëri ci ñoom duñu wote dama xaw koo gëm nag xam ngeen ma xaw koo gëm xam ngeen li tax ma xaw koo gëm xam ngeen li ndaw ñi ñooy pour cent de la population ñi nga xam ne ñooy les adultes ñoom war nañu mat moins de 30 pour cent la ca des mooy mag mag ñi à peu près 4,7 pour cent lañu donc 65 pour cent de la population bu ñu jógoon ne tey changement day am changement am 65 pour cent yi suñu wote premier tour la vote bi di jeex kon loolu li muy firnde mooy bëri na ndaw ñoo xam ne wote bu ñu de peut-être yéen bokku waaye bëri na ndaw yoo xam ne ñu ngay toog jour vote bi ci ëpp boo teelee xëy dem biir ba mag ñi nga fay fekk. kon dem leen voté ji ne bu leen yem ci lool sécuriser leen vote bi xam ngeen ñu sécuriser ne leen ma daanelee foofu ne leen ma na ngeen sécuriser vote bi mooy na ngeen toog ci bureau vote yi na ngeen awante sax parce que nit mënul toog ngoon bu suba ba ngoon bu ñu ñëwee bëgg a def seen yëfu caay-caay yooyu forcer bureau de vote yi pour bourrer ngeen li ngeen war a ak ñoom. parce que ñoom alkaati moo mën a taxaw ñu xaw ñoo ñeme de gis ngeen ni romb dañ leen ñu tëju ci biir kër yi li Khalifa Sall naan gat sa gat sa bu ñu demee ca bés ba ku koñ bu nekk xamante ngeen ku bokkul ci koñ bi ñu dugal ko ci bis jël ko fële mu ñëw naan day voté tàllal leen ko ba mu ne ñereet dugalaat ko ci bisam mu ne yow loolu rek mooy rek la problème des nag bulletin baa nii def leen def porte à porte wax leen ak mag ñi wax leen ak ndaw ñi bulletin bi yomb na huit bulletin de vote moo am Yewwi Askan Wi mooy bulletin bi amul photo xam nga loolu yomb na yeneen yeneen juróom-benn yëpp am na photo su ngeen di wax ak mag ñi nee leen juróom juróom ñett yeneen juróom-ñett yëpp wala yeneen juróom-ñaar yëpp am na photo waaye bi amul nataal amul photo boobu mooy Yewwi Askan Wi xam kon victoire au 31 juillet 2022 Kaolack Kaolack va rester parce que nag élection yi ñu jógee Kaolack opposition la ko tànne doo voté élection six mois ci gannaaw nga opposition la àndal six mois ñëwaat nga dellu ci Benno Bokk Yaakaar Kaolack va rester entre les de l'intercoalition Yewwi Wallu jërëjëf merci beaucoup. Look président yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm